d'accord kan et Mati mon bon ma d'une laajee dina yomb pour man ma tontu ko ah, parce que c'est ma petite sœur mon mooy Thiat donc euh, film bi ak personnage personne moom kan et Mati c'est tellement différent diamétralement opposé ah, man bu ma koy seetaan ci film bi une famille bu ñu koy seetaan ci film bi on est choqué parce que on se dit comment elle peut jouer aussi bien alors que amul benn minime lu mel noonu Khadija c'est une fille très simple c'est une fille très nette c'est une fille directe gentille waxuma ko parce que c'est ma sœur loolu moo am dafa mun a taquiner nag fu mu toog nit yi duñu ñepp dañuy reetaan tout le temps mi ngi taquiner wootee expliquer def ay détails moo tax ñun suñ ko gisee ci film bi daf ñu jaaxal euh, des fois dañuy romb ay nit ne Maty mi ngi nii dafa bon et tout alors que ñu ànd man daf may metti parce que je me dis que c'est pas la personne Khadija melul noonu en fait nit yi xamuñu ko rek moo tax donc euh, ma leen ñaan aussi ñuy mën a comme nous ne a différencier qui qui en personne ni qui personnage c'était un choc parce que déjà euh, ñun dañu bokk ci famille La famille Amad Diène avons c'était un choc parce que les gens t'appelaient de partout pour te demander est-ce que Khadija déjà déjà film c'était très très difficile mais après je me suis dit mais pourquoi c'est un métier comme comme tant d'autres passion homme la à côté il a ses études hein mais

mais après on s'est dit que passion là, y a ko le si jangam te mën métier pourquoi pas l'en rek qu'elle reste simple comme d'habitude humble bu mu succès bi bu mu yéeg ci ay épaule am ah non, non, ah, en général man je suis pas trop fan de séries. Ah, c'est normal les yi dinañ que ne sa rakk ci mais ça un succès fou.

ça m'a fait tellement mal de mon woo euh, bon parce que mi ngi attaqué Pote ak Marichou en diffusant des photos Yo xamante ne wóoru ko ah xamul lan la ak mag kooku doon def euh, Max mu diffuser ay photos Yo xamné c'était tellement méchant yak diggante Marichou ak Pote ma woo automatiquement ma ko Khadija ya bonne yow kii nga jàpp doomu jaamur bi nga japp diko def yefu bon yi pour lan la man ko man je te reconnais même pas en tant que sœur mi ne ma jappal ni que Mati ngay setan setan na wax déjà. je viens de prouver que t'as épousé une garce. es encore ma femme de garce. et je te casse la gueule tu m'as compris. tu oses lever la main sur moi. vas-y yow pour yow yow rek ya am droit dunu life bu neex tu m'as gâché ma vie je vais te mener la vie dure. am la bëgg.

yow yaa mën a fen yow yaa mën a duul yow yaay kan ba yëg ma jëkkër prison yow. Eh, la yëngu. Hmm. feeñ na nag yéen a yam ndax tere na. allo Madi. oui. courrier bi nga waroon envoyé si entreprise bi yegg comme que pot nee na Marichou dafa vierge <laughs> tey la lépp di leer. Marichou lii lan Oui, c'est ma yëf. d'accord dégage de ma vie je ne veux plus la vie de te voir dégage de ma vie s'il te plaît je Marichou bëggatuma la gis sur la tombe de mon père Marichou entre toi et moi c'est terminé. ok beneen scène bu me gën a marqué boo xamante ne c'était un choc aussi pour tout pour ñun suñu famille xam nga c' est un peu bizarre daal genre affaire mooy bi mu joué ak monsieur Lopez bu ñu tegante tànk.

lu xew mais moment bi kañ lañ ko gëj am xamal tuuti yow tamit. li nga doon ñaan am nga ko maintenant je suis là lan nga bëgg. gis nga pour affaire bu bon t'inquiète surtout pas teg naa samay plan ba pare. <laughs> plan lan nga ay instant bi teg naa pion yëpp bés bu ma séparé pare dinaa la defal compte rendu. <laughs> conseil bi ma leen di jox mooy li ma leen waxoon léegi nii rek sànq ah ne lâchez pas gën leen bosser dur parce que c'est pas facile hein milieu bo xamante la c'est très très difficile surtout que yéen nouvelle génération ngeen hein, nit yi dañ leen di door xam yene produire sen bopp yene bind sen affaire yene koy def hein donc succès bi mu am un bi lool lima ma leen di conseil moy ngeen def tout ba 2 bi ak 3 bi incha allah mel noonu donc mom lima kay koy moy mooy mu rester ci cap bi japp li mu japp bañ ko bayé euh gëna continuer di perfectionner bopam hein des fois ma xas ko ma ko da nga bëri manière bu def ni bul def de mu wañ ko lool tout conseil nak ko mu wañ ko tuuti bon yeen tamit euh franchement ma leen féliciter li ma leen di avancement bu len lâché bu len dellu ginnaaw parce que on a vu des choses yo xamante des séries hein entre guillemets yo xamante début 1 bi dafa neex 2 bi trois bi kenn bëggatu ko seetaan foofu déjà kenn seetaan ko donc euh, li ma leen di ñaan mooy ngeen ngeen def level bu bees